Eh, Souleymane egsi na Souleymane maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay. Eh, fay di la eh, ziar. di la wax sama contenté ci retrouver waat la. ça fait un peu longtemps gëj nañ absolument <laughs> parce que du liggéey. waaw di nuyu Chérif mi nga xam ne moom euh, ci sànni xeer la dëkk. ah Souleymane ñu àtte ñu xam naa di ñu àtte bés moom di ñu àtte moom faaw mu am mënut a ñàkk. nuyu Marcel nuyu El Hadj Malick. suñu euh, natango technicien yi nekk ci régie bi di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi. Mm, merci beaucoup alors Souleymane comme d'habitude ci wàllum koom euh, tey dangaa bëgg a taxaw ci enjeu formalisation bu secteur informel yàgg nañ ko wax nag ba dernièrement njiitu réew bi junjaat na ko ngir xaj nañu gën cee taxaw. n'est-ce des ministres bi passé bi muy fàttali li mu euh, waxante ak euh, acteurs yi nekk ci euh, monde du travail ci premier mai bi junj na loolu tuuti parce que dafa demander gouvernement bi ñu baral ñu baral li nga xam ne mooy togg bi ñu doon togg Euh, stratégie nationale de formalisation du secteur informel mhm. stratégie boobu nag bu ngeen fàttalikoo mai 2021 le ministre de l'artisanat bi nga xam ne moom moo yore mbir moomu mhm. euh, lancé woon processus bi am na document sax euh, mun nañu wax ne sax c'est presque finalisé mhm. amaana dafa am ay joyant yu ndaw yoo xam ne dañ ko war a indi ci document mhm. bi pour que stratégie boobu mën a opérationnel am na nag euh, lu bëri lu ñu ci wax analyser diagnostiquer problème yëpp ba pare nag indi ay solution lal ko nag ci benn vision vision boo xam ne moom mooy euh, vraiment joyanti économie Sénégal euh, notamment mm. en formalisant benn masse critique euh, de de d'unité industrielle informelle ba pare nag respecté ci lu bëri rawatina travail décent moom mooy liggéey boo xam ne ki koy liggéey daf ciy gis boppam mm-hmm. ci payoor ci protection sociale ci épanouiru ci tamit euh, am njeexital ci vraiment mhm. koom-koom bi ba pare ñu yokk ci beneen valeur boo xam ne mu ngi ci vision bi moom mooy équité et égalité de genre mhm. cest dire ñu yemale góor ñi ak jigéen ñi ci liggéey bi loolu mooy vision stratégie bi mhm. euh, donc euh, prétexte bi loolu la moom mooy li li li président wax nañu baral waaye ñëpp xam nañ ni le problème de de de l'informel ci suñu koom-koom bokk na ci gàllankoor yi gën a mag yi nga xam ne day euh, day tënk tuuti. Mhm. suñu suñu développement. Euh, Souleymane dafa mel ni bu ñuy euh, caractériser ay entreprise këru liggéeykaay yu ñu mel naan ay dañoo informel dafa am ci ay critères yu ñu koy basé am na ay jàngat yu ñu gis lu ci mel ni BIT du bureau international du travail ñu ngi naan 85 virgule 4 pour cent entreprise yi dañoo informel fii ci Sénégal mais loolu bëri na de est-ce que effective loolu loolu bëri na. waaw loolu mooy chiffre BIT. waaw c'est une très bonne question parce que dafa am. Euh, définition yu xaw a wute tuuti mhm. nde sax yëpp benn la mhm. waaye critères yi ñoo ñoo wute par exemple boo jëlee ANSD xam nga ANSD 2016 defoon nañ fi benn recensement général des entreprises moom moo joxe woon euh, les 407 882 entreprises unités économiques mhm. yu ñu recensé woon xam nga résultat yi 2017 la génnoon mais 2016 ñu commencé woon processus bi ANSD dafa am définition du définition mais dafa am bi muy def recensement am. Mhm. ci lu mu ko tënkoon moom mooy mu ngi naan ñun lu ñu considéré comme entreprise euh, non formel wala unité économique non formelle moom mooy liggéeyukaay wala liggéey boo xam ne yaa koy defal sa bopp te tënkuwul ci da nga ko da nga ko da nga ko yoreel. comptabilité waxuma la sax comptabilité mais comptabilité boo xam ne day respecter normes yi nga xam ne moom la ñu appliqué fii Sénégal xam nga Sénégal CISCOADA lañ fii appliqué comme norme comptable mhm. bu nekkee ni entreprise bi amul comptabilité boo xam ne dafa méngoo ak CISCOADA rek ANSD bi muy def recensement boobu dafa jàppoon ni ci informel nga bokk mhm. looloo indi boo jëlee chiffre ANSD ANSD dafa ne quatre-vingt-dix-sept pour cent. moo ëpp sax ñoom ñoo ëppale BIT. Uh-huh. Mhm. alors boo jëlee critère boobu quatre-vingt-dix-sept pour cent des unités industrielles des quatre cent sept mille unités industrielles presque quatre cent huit mille informel lañ nekk y a trois pour cent des unités industrielles. Hmm. yoo xam ne ci formel bi lañ nekk. nga jël BIT. Hmm. ñoom nag dañ naan bëri na ay critères. soit da ngay am. registre de commerce ñoom boo amee registre de commerce rek bokkatoo ci informel yaa ngi ci formel wala nga am ñu ne loolu tamit dañuy jàpp ni wala nga am comptabilité waaw donc soit soit soit looloo indi. Mhm. Euh, pour ANSD en 2016 2017 ñu ne 97 pour cent. looloo indi euh, BIT wala OIT. ah BIT d'ailleurs mhm. euh, benn la mais ñu BIT la ñu jëflanteel d'ailleurs euh, au passage ma préciser ni BIT dafa bokk si ñuy jàppale Sénégal pour ñu développer la stratégie nationale intégrée de formalisation du secteur euh, informel mhm. donc looloo indi waroo bi tuuti ci chiffres yi mais loo ci mënti jël ci chiffres yi informel bi mhm. structurellement moom moo moo moom moo ëpp ci économie Sénégal voilà pourquoi ci PSE voilà pourquoi ci yeneen cadre stratégique mhm. yoo xam ne am nañ ko mu nekk ay référence euh, struc euh, restructuration wala modification de la base structurelle suñu économie boo déggee ñu koy wax bokk na ci ñu wàññi informel bi gën a formaliser mhm. les unités euh, économiques pour ñu mën a dugg vraiment ci économie bi c'est-à-dire ñu jot ci économie li ñu war a jot parce que boo formelul am na yu bëri yoo xam ne doo ko mën. absolument alors Souleymane. Hmm? Euh, quid de l' aspect euh, fiscal euh, ci ci ci environnement bu mel nii 97 pour cent c' est quand même énorme hmm. gis na ne kon en on imagine qu'en termes de de versement. de recette fiscale impôt ak yu mel noonu. l' état perd énormément est ce que justement problème yu bëri yu jëm ci wàllu boobu noonu jógewul ci secteur informel bi et quel est le manque à gagner justement de l' état. alors bokk na ci loolu. bokk na ci problème yi nekk au cœur. Euh, de la formalisation du secteur informel mhm. moom mooy fiscalité bi mais fiscalité da nga koy jël déjà comme cause euh, bu am dayoo mhm. ci lu tax entreprise yi bëgguñu formaliser wu parce que boo formaliser ñu bëri si ñoom loolu la ñuy wax dañ naan man bu ma demee enregistré wu ni ne yaa xam ma mhm. euh, registre de commerce xam ma euh, ma am identité nga xam ne léegi euh, douane dañ may xam impôt xam ma Euh, presque xam ma. Mhm. Euh, CSS xam ma et cetera loolu day day daf may jural ay. gàllankoor mhm. donc loolu bokk na ci cause li tax nit ñi sawaruñu formaliser wu. mais tekkiwul nii mhm. boo informele doo fay. l'impôt dama laaj ñi nga xam ne dañu yore boutique parce que boo jëlee unité économique yi boutique yi bëri na ci lool parce que presque la moitié des unités économiques ay unités économiques de commerce la mais ñooñu xam nga danga am foo nekk boutique moom doo do xanaa bitiku mbag waaye boutique da nga am lieu tu es identifiable d'ailleurs le ministère du commerce day lancer euh, très bientôt benn recensement et c'est bien fu mu nekk nii on est en de cartographier gis nga recensement national de la population et de l'habitat cartographier nañu déjà kër yëpp ba xam kan mooy chef de ménage yi euh, recensement bi nga xam ne ANSD defoon na ko xam nañ parce que non seulement dañoo recenser mais dañoo identifier aussi cartographier les unités mm-hmm. tey jii ministère du commerce Euh, mu ngi def mu ngi préparé moom tamit def recensement am euh, sous prétexte de xool ndax prix yi nan lay évoluer ci unité yooyu mais ça leur permet aussi d'avoir une cartographie de ces choses-là donc teewul une bonne partie de l'informel dañu fay quand même l'impôt même bu dee ni du du du DGID mooy ñëw xam nga bu nekkee dañ la enregistré yaa war a dem fay yaay def sa ay déclaration comme par exemple 30 avril bi mm-hmm. passé c'était la date limite yenn déclaration yi ak euh, paiement deuxième acompte provisionnel pour entreprise yi ñoom xam nañ li may wax nii mais boo nekkee ci informel loolu du la ci fekk mhm. par contre juuti dina ñëw fekk la fi nga toog ak patente yi hmm. di nga fay donc effectivement euh, c'est une des raisons mais teewul dañu fay euh, duñu fay maintenant boo xoolee du point de vue de l'État comme yow ni nga ko defee nii hmm. moom mooy que ni effectivement état bi day am manque ak gagner amaana mënuma la wax ñaata la euh, mm-hmm. mais état bi jël na ci conscience looloo indi état bi indi les impôts synthétiques d'accord CGU contribution globale unique bi ñu defoon moom mooy ñi nga xam ne dañoo yaakaar ni vraiment l'impôt bi dafa compliquer Euh, administrativement da dem def ay déclaration nga war a remplir ay formulaires et cetera ñu yombaleel leen defal leen benn forfait boo xam ne sa chiffre d'affaires bu amul fu mu egg fii parce que bu eggee yenn yi da nga war a formaliser mais am na yenn yemamaay yoo xam ne boo ko yemamaayee mm-hmm. l'impôt dañ la koy yombalal donc def ay impôt synthétique du CGU kese ah même ci yeneen yi euh, les impôts fonciers tout ça am na ay impôt synthétique yoo xam ne pour yombalal loolu yëpp pour inciter informel bi ñu formaliser wu hmm. amaana joxewul résultat yu ñu bëgg yi parce que boo xoolee chiffres yi quand même 97 hmm. pour cent tenuruñu comptabilité et cinq pour cent et c'est ça qui est le plus important chiffre boobu. oui 85 virgule 7 ou virgule. 6 euh, mm. pour cent virgule moom mooy wane ni. nekkoo NINEA. Mm-hmm. nekkoo registre du commerce. Euh, rawatina nag yoroo sax euh, loo xam ne moom mooy wane ni yaa ngi gérer de façon scientifique rationnelle. Mm-hmm. sa entreprise chiffre boobu c'est très important ça veut dire que malgré les efforts qui sont faits. Mm-hmm. Euh, xëj na nit ñi ba léegi joxaguñ leen des raisons suffisantes. pour ñu formaliser wu de ces raisons nag bëri na. parce que financement par exemple si la bokk. yow boo formé lul munoo am financement. en tout cas financement bancaire. Mhm. financement bancaire boo formé lay sax c'est extrêmement difficile de l'avoir au mhm. selon des chiffres de la Banque mondiale. Mhm. tey jii pour nga am un prêt bancaire enfin loolu c'était en 2017 2018 pour nga am prêt bancaire au Sénégal il fallait que nga indi garantie boo xam ne tolloo nag presque de deux à quatre fois li ngay leb. booy lebu cent millions. en moyenne il faut apporter deux virgule sept fois cent millions yooyu. Hmm. donc deux cent et quelques millions ah, loolu moyenne bi la. Hmm. pour les entreprises formelles. Hmm. c'est une fois virgule six. mais pour l'informel pas ah, pour l'informel pour les petites moyennes entreprises micro petites moyennes entreprises. c'est quatre fois la valeur. loolu déjà mooy ñi nga xam ne dañoo formalisé wu. Mm. masamalaak yow mii nga xam ne formalisé wu. d'où la nécessité euh, doyen de. communiquer maanaam il faut ñu wax ak ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk secteur informel wax leen ñàkk formaliser wu yan njeexital la am waaye bu ñu formaliser woo tamit yan avantage lañ ci war a am parce que ñoom li nga wax rek la ñuy gis bu fekkee ni dañ maa identifier xam ci lu may yëngu xam lu may am daf may sonal mën nañ naa continuer di liggéey sama liggéey sur le plan informel et puis il y a une nécessité d'encadrer tout ça d'autant que ça représente plus pour cent du pays. Oh, du PIB c'est mais loolu PIB la mais boo jëlee chiffre d'affaires c'est c'est très peu c'est 16 pour cent mm-hmm. donc gis nga écart bi am entre 97 pour cent euh, ci poids euh, relatif par rapport ak nombre bi ak poids relatif par rapport ak koom-koom bu muy générer boo jëlee juste le chiffre d'affaires mm-hmm. yàlla ak yàlli la mm-hmm. euh, écart boobu mën nañ ko wàññi à travers la formalisation pour pourvu que formalisation bi et euh, El Hadj lu mu wax li c'est très important gis nga analyse coût bénéfice kiy jaay kiy yëngatu ci koom-koom mm. bokk na ci analyse yi nga xam ne ñoo gën a efficace ci moom mm. kuy jaay di yëngu ci koom-koom mm-hmm. loo koy wax bëgg ko convaincre mm-hmm. won ko ni lii mooy coût bi lii mooy bénéfice yi mm. et bénéfice yi moo ëpp coût bi mm-hmm. effectivement formalisation dafa am coût parce que di nga fay l'impôt peut-être plus que li nga doon fay amaana di nga mais da nga am tamit ay avantages yu ci nekk en terme de xoolal état bi état bi euh, bi Covid bi ñëwee dañ doon jàppale entreprise yi. Mm. yow boo formalisé wul nan nga bëggee ñu jàppale la. Mm. kenn buñ la xamul nan lañ lay jàppale. bien que y eu des efforts pour jàppale leen. Mm-hmm. mais avec tous les problèmes qu'il y eu. Mm-hmm. parce que yow organisation faîtière yi rek ngay mën a jox. ay chambre consulaire ay chambre de commerce. Mm-hmm. ay organisation euh, de. d'artisans et cetera bu boobaa bu ñu demee ba ci biir. Mhm. nga gis ñi naan ci laa bokk ñi naan bokk. ma ci yi jotuma ñi naan jox ay mbokkam la jox et cetera alors que quand on bu boobaa day gën a yomb ci état bi. Mhm. am nga compte bancaire am nga comptabilité. l'impôt xam na la en plus xoolal Covid bi bu mu amee. Mhm. ba ba ci après sax parce que impact bi nga xam ne moom la Covid bi am. ak guerre Ukraine euh, Russie. dem na ba benn moment état bi dafa ne nañu accélérer euh, remboursement euh, crédit TVA yi parce que TVA bon c'est pas la peine d'entrer dans les détails ici TVA da ngay collecter pour état reverser état waaye tamit yow da ngay fay TVA état bi day xool li nga fay ak liñ nga fay. bu nekkee yow li nga fay moo ëpp li nga reversé dafa am loo xam ne état bi moo la ko yoreel mais état bi da koy téye lu yàgg yow boo formalisé wul. mënoo récupérer TVA. Mhm. loolu benn si mécanisme yi nga xam ne les entreprises les unités économiques opportunité la mais duñ ko utiliser. Mhm. financement bi ci la bokk euh, ak yeneen ak yeneen. Euh, DER a ngi fi yeneen mécanisme de soutien ñu ngi fi. Mhm. Euh, sans compter maintenant li tax BIT di jàppale Sénégal ci stratégie bi moom mooy travail décent. yéen a ngi liggéey yaa ngi liggéey ak sa ay mbokk yaa ngi liggéey ak sa ay xarit yaa ngi liggéey ak ñeneen ñoo xam ne da nga leen recruter parce que recruter woo leen sax da ngay liggéey ak ñoom rek mm-hmm. mais fayoo leen payoor bu doy versé woo IPRES versé au caisse sécurité sociale amuñu IPM amuñu assurance maladie et cetera et cetera ils n'ont pas de travail décent mm-hmm. boo formalisé wul lu dul sa yéweenu bopp mm-hmm. nga yéene ñi ngay liggéeyandool loolu tamit am na am na ñu nekk si informel bi wax dëgg yàlla dañuy toppatoo seeni ay collaborateurs mm-hmm. waaye loo toppatoo toppatoo sa collaborateur cotisé woo IPRES cotisé woo caisse sécurité sociale mm. amul protection sociale amul euh, assurance maladie et am na lu des mm. formalité boobu nag euh, yaakaar naa ni euh, waaw mairie yi war nañ ci mun a euh, jouer rôle bu am solo parce que ñoom la majeure partie du temps ñoom ñoo gën a jege ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk secteur informel bi ñoom ñooy gën a liggéey ak ñoom pour identifier leen mën leen a euh, peut-être jàppale il faut ñu jaar ci euh, collectivité territoriale yi aussi. c'est c'est un point important fu mu nekk nii yàlla a forum mondial. Euh, de l'économie sociale, sociale et solidaire bi nga xam ne Dakar moo koy abrité mm-hmm. avec euh, la mairie la ville de Dakar mm-hmm. qui est au premier plan. Mhm. avec l'État du Sénégal bien naturellement. Euh, soit dit en passant selon yenn définition yi économie sociale et solidaire dafa bokk ci informel. tout à fait coopérative yi dañ leen boole aussi ci euh, et cetera. Mhm. d'où l'intérêt du point de vue effectivement de El Hadj Malick. Mhm. les les les collectivités territoriales dañoo am euh, rôle bu important bu ñu war a jouer d'autant plus que. Euh, plus ou moins directement wala indirectement bénéficiaire lañu ci éventuellement recette yi ñu am ci loolu je parle sous le contrôle euh, du du du du maire Bamba Fall Bamba boo ko laajee ñaata cantine nekk marché yi exactement mën na la koo wax exactement boo ko laajee ñaata mécanicien garage ñoo fa nekk mën na la koo wax boo ko laajee ñaata ñaata taabala la fa ne mën na la koo wax exactement ñaata Malick ñu bàyyi Souleymane terminé alaaji Malick intégré leen ci pour que par souci d'efficacité pour ñu mën a xam exactement naka lañ leen di formaliser évidemment c'est un travail de longue haleine parce que mais stratégie bi dafa am après non 2022 2026 la. donc euh, mais oui. puisque président mu ngi wax nañu accélérer finalisation bi. Oui. Mhm. c'est à partir de 2026 en fait mhm. que la, la stratégie va être déroulée en mhm. général les stratégies c'est 10 ans. 10 ans euh, donc on on espère d'ailleurs heureusement ils disent formaliser une masse critique. d'accord waaw ah, ñëpp xam nañ ne 407 000 euh, unités euh, dont. trois cent quatre vingt dix mille trois non trois cent cinquante mille à peu près yoo xam ne euh, dañoo informel pour nga formaliser leen d'autant plus que yii dañu dee yeneen ñëw juddu et cetera et cetera parce que c'est mm-hmm. on garde un chiffre pour nga formaliser toute cette masse là même dix ans doyul mm-hmm. donc l'objectif c'est vraiment de formaliser une masse critique mm-hmm. dans le cadre de de de du changement des bases Euh, structurelle de notre économie et évidemment loolu yëpp day indi plus de visibilité euh, je termine sur ça oui. dégg ngeen premier ministre keroog ci décembre bi bu muy def déclaration de politique générale mm -hmm. euh, il disait que début d'année 2023 bi acteurs yi dinañ daje pour ñu toggaat code des impôts bu bees évidemment euh, élément bi élément bu important la boo xam ne daf ci dugg parce que Euh, dépendant la mooy sa structure économie say comptes nationaux dañu fiable ou pas fiable puisqu'on part sur un rebasing il faut aussi qu'on ait des informations plus fines mmh. sur la composition justement euh, de notre tissu économique notamment en termes d'unité industrielle surtout mhm. nag ñu xool équilibre informel formel jéem a rétablir un peu euh, même bu ñu xamee ne de toute façon on mm. continuera à avoir cette forme pyramidale avec des entreprises formalisées des grandes Consommer. entreprises et puis mu mm, xaw a ruisseler tuuti mm. mais euh, il faut amener quand même un certain équilibre même si c'est relatif oui. merci beaucoup merci Souleymane ci jàngat bi euh, léegi-léegi dañuy ñëw jàll ci ponk bu mujj muy sunu gan ñu dalal ko